suñu Sunugal 24 Sunugal 24 point net ñu ngi leen di souhaiter un très bon début de semaine di ñaan yàlla rek semaine bi ñuy dugg nekk semaine u jàmm ak salaam ba ku ci nekk rek mën a dox sa yitte toujours comme ni ñu koy faral di defee tous les lundis et les vendredis seen émission jàngat dañuy am mbégte rek ak contentement dalal fi koo xamante ni xam-xamam dina màcc ci li nga xamante ni moom lañu fas yéene waxtaane bokk na ci date bi nga xamante ni muy dat bu décisive ci ki nga xam ne moom mooy njiital Pastef di Ousmane Sonko mu nekk ñaari mbir yoo xam ne mu ngi koy xaar wàllum CEDEAO ak li nga xam ne moom mooy Cour suprême euh, suñu invité dina ci ñëw bu baax a baax waaye aussi bokk na ci point bi nga xamante ni ñu bëri nga koy euh, lamlaamee muy euh, ñu reporter li nga xam ne moom mooy élection yi ku ci nekk nag am ci sa gis-gis nga daal di koy joxe rek ci boobu lee mbir nga xam ne jamono ji ñu ngi koy dégg muy dal ci nopp askan wi beneen bi nga xamante ne aussi gis nañu ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Balde kàddu yi mu yëkkati rek jëmale ko ci kii di Amadou Ba muy candidat officiel bu Benno Bokk Yaakaar euh, loolu aussi dinañ ci ñëw dernier point bu ñu koy tëjee mooy li nga xam ne aussi euh, bokk na ci lëmbee askan wi muy wàllum émigration irrégulière bi nga xamante ni euh, ndaw sénégalais yi ñu ngi daal di song rek fa li nga xam ne moom mooy Espagne ñu bëri daal di siy ñàkk seen bakkan donc am nañ mbégte ak contentement dalal fi ki nga xamante ni moom mooy Papa Ahmadou mbay di juriste ñu koy nuyu bu baax a baax bàyyi ko mu nuyoog internet bu ko defee ñu tàmbali waxtaan bi bonjour Bonjour Lalla, donc euh, je crois que comme ni nga ko campé à travers tes propos liminaires donc may commencer d'abord par euh, vous remercier de cette invitation mm -hmm. de profiter de l'occasion aussi di remercier toute la communauté de la Sunugal 24 donc di ñaan yàlla donc émission bi ñu pensé que dans la sérénité et que li nga xamante ne tey jii moom la Sénégal yi di xaar ci ñun mooy ñu éclairer seen lanterne par rapport à un certain nombre de questions brûlantes de l'heure mhm. donc qu'on puisse avoir la capacité de de les expliquer clairement et juridiquement donc mhm. l'actualité politique judiciaire alors euh, ba euh, dama fàtte énumérer aussi beneen point mooy gis nañu ne fit aussi juddu na muy euh, euh, coalition boo xamante ni wala mun nañ ni front boo xamante ni euh, ñoom aussi opposition bi fas yéene nañu boole seen doole ngir rek mën a doxal bu baax a baax wàllum démocratie donc dañuy dem directement ci li nga xam ne moom mooy dat bi nga xam ne moom moom la ñëpp di xaar muy le 17 d'abord CEDEAO tey euh, ku ne xam na ni pression la Pastef di doxee jamono ji muy soit Pastef muy agent judiciaire de l'État ñu bëri sax ñu ngi wax ne même bu fekkee dafa am dëgg duñu ko appliquer ndax peut-être amoon na yeneen yu fi jaar tey ban jàngat ngay def ci loolu. bon merci Lala par rapport à cette question je crois que on a constaté que Ousmane Sonko bi nga xamante nit tey jii moom mooy le principal opposant de ce régime. donc ces dernières années constaté nañ par exemple euh, un euh, une floraison de contentieux yoo xamante ne ni état du Sénégal dirigé na ko à son encontre donc depuis pratiquement l'accusation grossière qui a été portée à son encontre sur son dossier l'opposant à Adji Sarr en passant par euh, la procédure aussi l'opposant tout de même à Mame Mbaye Niang mm daal c'est un opposant boo xamante ne nii donc il a été toujours au banc des accusés donc il a toujours été accusé par pour des raisons purement politiciennes. Ça, on, on, on, peut le dire au vu de la manière dont les procédures ont, se sont déroulées, donc récemment. Donc, d'ailleurs, une idée claire que l'État du Sénégal, ce n'est pas véritablement Baye Ousmane son côté dit Aksagom, concourir au suffrage des Sénégalais comme ni ko ay naataangoom di defee mais da nga am une idée claire que derrière tey jii nii kat ces ces ces ces dossiers en n'en plus finir am na leneen loo xam ne moo nekk derrière te li suspicion yi nga xam ne moom la Sénégalais am de façon ils veulent que coûte que coûte empêcher sa candidature aux élections présidentielles qui se profilent à l'horizon euh, de ce point de vue là bi mu constaté moom Ousmane Sonko que en interne on a engagé beaucoup de procédures à son encontre à chaque fois que moom mu dem devant les juridictions dañuy bafouer ay droits am dañuy violer parfois même les règles les plus élémentaires de la procédure il avait jugé nécessaire en tant que citoyen du Sénégal mais aussi en tant que citoyen de l'Afrique de porter le combat d'internationaliser le combat devant la Cour de pour que CEDEAO mën a constater les violations les actes de percussion persécution mhm. dont il a toujours été l'objet dont il a toujours été victime au Sénégal bi nga xamante ne loolu am na état du Sénégal dafa prendre acte donc euh, la requête a été déposée en référé par les avocats de Ousmane Sonko au niveau de la cour de justice de la CEDEAO parce que cour de justice de la CEDEAO dama koy rappeler le Sénégal dafa nekk membre de la CEDEAO parce mhm. bi tax tey ji mu intégré au niveau de la CEDEAO te boo xoolee l' article 98 de la constitution du Sénégal dalay wax ne les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur entrée en vigueur une valeur supérieure à celle des lois des règlements mais pourvu que pour chaque accord de son application par l'autre partie autrement dit de manière beaucoup plus claire l'État du Sénégal à chaque fois que tey ji mu jël ay engagements internationaux que ça soit des traités des accords entre ou bien des wala des ah, ay coopération bien évidemment dafa war a dem jusqu'au bout de sa logique te dal article 98 de la constitution du Sénégal sax da wax ne engagement yi nga xam ne ni ak décision yi nga xam ne tey jii nii moom la Sénégal moom moom mooy engagé Sénégal au niveau international mu ëpp doole même les lois ne CEDEAO ne le Sénégal est membre dafa am ne nii li ko tax a jóg mooy parfois bu fekkente ne am na benn citoyen ne constaté na ne ses droits sont bafoués ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi mené nga xam ne nii moom moo fi jot a am ba tax nit ñi di craindre ne quelle que soit la décision qui sera issue euh, euh de, de de la juridiction communautaire le 17 l'État du Sénégal du ko respecté mooy dafa am euh, euh, des exemples qui sont là dans l'affaire Karim Wade contre l'État du Sénégal on avait constaté que l'État du Sénégal avait pris la décision de restreindre la liberté d'aller et de venir de, de Karim Wade mooy interdiction de sortie du territoire mm -hmm. et on avait constaté que les avocats de Karim Wade bin clamé devant la cour de justice de la CEDEAO la cour de justice de la CEDEAO avait pris acte de cette violation et avait enjoint à l'État du Sénégal de respecter les droits de Karim en ce qui concerne sa liberté de mouvement mais on avait constaté que l'État du Sénégal n'avait pas respecté cette décision la procédure Khalifa Sall, qui était l'édile de Dakar et l'État du Sénégal, dans le cadre du dossier concernant la caisse d'avance, constaté nañ ne bi nga xamante ne tey jii avocat yi euh, Khalifa Sall yi décelé woon nañ un certain nombre d'irrégularités de la procédure ñu joytu ko au niveau de la cour de de justice de la CEDEAO mais cour de justice dafa condamné woon même l'État du Sénégal à payer des dommages et à Khalifa Sall en constatant la violation de la procédure a constaté que l'État du Sénégal ne dañoo bëgg continuer dans cette logique là ñu war a dem tey jii CEDEAO le 17 mu war a rendre un verdict par rapport à une procédure opposant Ousmane Sonko à l'État du Sénégal donc bu fekkente ne récemment on a constaté que l'État du Sénégal n'a jamais pris le soin de respecter les décisions communautaires Donc les Sénégalais peuvent avoir la suspicion légitime que le 17, vous faites qu'un de la décision qui sera issue de cette juridiction communautaire, c'est une décision qui favorable à Ousmane Sonko, mon non avoir un état de Sénégal tout cas Alors alors euh, Mohamed, euh, fi ma bëgg ñu taxaw fo moy tay tey li nga wax certes, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord ci point bobu. Mais est-ce que le cas de Khalifa Karim ak Ousmane Sonko c'est le même loolu aussi ça reste à voir parce que peut-être ñee am na lu luñ lu ñu jotoon a def lu ñu leen takkal loo xam ne peut-être jusqu'à présent setagul donc tey est-ce que ça sera euh, la même chose que tey kaaw Ousmane ko parce que Ousmane ko toppee wuñ ko ay enrichissement illicite wala dafa jël wala dara c'est peut-être beneen mbir la boo xamante ni moom lañ koy toppee actuellement nii te tey c'est pas forcément que sax moom day am dëgg tout comme agent judiciaire euh, euh, de l'État. Mm -hmm. tey pronostic boobu ñuy def aussi est-ce que anticiper wuñu à la fois. oui xam nga l'opinion publique moom comme nañ koy waxee rek peut-être parfois l'opinion peut penser mal parce que Henri Bergson moo doon wax naan l'opinion pense mal elle ne pense pas parce qu'elle traduit ses besoins en connaissance xam nga opinion moom toujours nit ñi dañuy dañuy def ay taxaw seetlu. Mhm. di def ay jàngat. mais boo xoolee exemple yi ma la fi jox yëpp moi je ne dis pas en euh, obligatoirement ou bien forcément la juridiction communautaire va rendre mm -hmm. une décision en défaveur de l'État du Sénégal. Mhm. Parce que la justice, elle est imprévisible. Quand on la bonne décision le juge de dire souverainement. Mais bon, par exemple, euh, par rapport à votre question, Ousmane Sonko, moi je peux dire que euh, nous que nous que traîner dans la boue si gestion Maxal. je ne pense pas que benn opposant sénégalais mos nañ ko mos nañ ko traité de cette de cette façon là parce que boo xoolee le problème de fond comme je l'ai dit les gens ils ne ils des violations de la loi problème de fond Ousmane Sonko mooy lan la situation de contumace xam nga par exemple tous les juristes convaincus et sérieux ont déjà décrié le fait que Ousmane Sonko état du Sénégal le fait que mu bëgg ñu mu bëgg ñu gëmloo ba léegi mënuma concevoir nit ki nga juger que par devant la chambre criminelle par rapport à un dossier euh, l'opposant à Adji Sarr pour viol et menace de mort ñu dem ba ci biir il n'a pas comparu devant la chambre criminelle il a été de surcroît jugé par contumace mhm. article 307 du code de procédure pénale à partir du moment waa ji da nga ko jugé par contumace dès l'instant qu'une arrestation sera op opéré à son endroit, l'arrêt de condamnation qui a été pris à son encontre est anéanti de plein droit. Mm se constitue prisonnier. Et je crois que Ousmane Sonko, il a respecté toutes les deux conditions établi par l'article 307 du de procédure pénale. Parce que, bien que vous juge par contumace, c'est l'État du Sénégal qui l'a arrêté. biñ ko arrêté ba pare nag juriste yëpp li ñu doon xaar moo ñu delluwaat devant la chambre criminelle pour le rejuger dans les mêmes formes loolu gis bi dafa génn wax ne dossiers yi bokkul oui xam nga quand le ministre Ismaïla Madior Fall dit que dossiers yi bokkul c'est parce que moom euh, mën nañ respecter le grand juriste le grand constitutionnaliste qu'il est Mais sur le terrain pénal, Ismaël Madiel Fall, il, euh, il fait une mauvaise incursion dans le domaine pénal, puisque même il n'est pas pénaliste. Okay. Parce que bon, nous avons un droit pénal. Le droit pénal est d'interprétation stricte. Le droit pénal n'est que le droit qui est interprété. Interprété. Par exemple. interprétation stricte mooy booy booy booy analyser disposition bi da nga koy analyser à sa juste proportion du yow yaay toog ci say xayma ci say intuition ngay wax par exemple kat waru woon a wax li waru non il faut l'interpréter strictement et on on nous enseigne aussi en droit qu'il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas mënuma concevoir disposition bi wax ne dès son arrestation l'arrêt de condamnation qui a été pris à son encontre est anéanti de plein droit. Donc la disposition, elle ne fait pas la dichotomie entre euh, il, a été arrêté pour telle infraction ou telle autre infraction. Donc dès son arrestation, donc l'arrêt de condamnation est anéanti. La conséquence de droit, mon waron nekalan, donnons waron a enrelevé dossier devant la chambre criminelle pour, pour qu'il soit rejugé dans les mêmes formes. Pour faire qu'Internet, on n'a établi par l'article 307 du Code de procédure pénale. On n'a pas aussi de surcroît respecté les formalités de l'article 312 du Code de procédure pénale. Bi wax ne mhm. à partir du moment où waa il est considéré comme un accusé contumax. Mhm. Arrêt de condamnation bi dañ ko war a publier dañ ko war a afficher dans son dernier domicile connu parce que boo xoolee euh, dans la motivation du juge Sabassi Faye. Mhm. dana leen vous ma on m'a boo xamante ne nii dañoo wax ne Ousmane Sonko il a Euh, euh, éliminer radier, radier mhm. du fichier électoral mhm. les arguments de l'État du Sénégal pourquoi le juge Sabassy Faye prendre en, compte parce que le juge Sabassy Faye dane dans sa motivation dans la décision dans l'ordonnance qui a été prise par le tribunal d'instance de Ziguinchor dane leen man yéen vous voulez caractériser vous voulez présenter Ousmane Sonko comme un contumax alors que moi le juge Sabassy Faye dossier bi nga à ma disposition la formalité la décision dans son dernier domicile connu man gisuma ko samay dossier donc à partir du moment où cette formalité préalable que vous deviez respecter Euh, vous ne l'avez pas respecté man li may prendre acte mooy je ne peux pas considérer que Ousmane Sonko comme un contumax. et s'il n'est pas considéré comme un contumax donc la a été foofu laa foofu bëggoon naa nga def benn éclaircissement balaa ñuy avancer. Mhm. parce que ñu bëri ñu ngi naan euh, décision bi nga xam ne juge Sabassi Faye jël na ko euh, dañu ko waroon appliquer ba pare. avocat euh, l' agent judiciaire de l' état doog dem cour saisir cour suprême euh, donc avant sax ñuy dem saisir cour suprême non seulement dañu waroon appliquer décision bi mais dañu waroon jox Ousmane Sonko fiche de parrainage yi le temps que ñoom ñu dem euh, cour suprême pour mën a def appel mmh. donc litige boobu noonu bëggoon naa nga apporter ci éclaircissement est-ce que réellement décision bu ñu waroon appliquer la euh, à l'instant que juge bi jël décision bi waaw xam nga à partir le juge Sabassy Faye avait pris cette ordonnance enjoignant à l'État du Sénégal à travers son administration de donner à Ousmane Sonko ses fils de décision boobu noonu dafa exécutoire par force. ah parce que boo xoolee article 47 du code électoral dalay wax ne à partir du moment où jël nañ décision boobu noonu dañ koy exécuter sur le coup léegi nag la question fondamentale du sax. li nga xam ne ni moom la article wax ne décision boobu dañ ko war a exécuter mhm. mais la question fondamentale mooy est-ce que le pouvoir en cassation qui a été intenté par l'État du Sénégal est suspensif mhm. boo xoolee l' article euh, bi nga xam te ne ni moom mooy portant création de la cour suprême. Mhm. bi muy énumérer les les types de recours yi nga xamante ne ni sont suspensifs. recours bi nga xamante ne ni tey jii nii kat euh, euh, recours pour Euh, du moins pourvoi en cassation bi nga xam ne état du Sénégal intenté na ko bokku ci. donc de ce point de vue là à partir du moment où le juge Sabassy Faye a pris cette décision. bi nga xam ne dañu leen Ousmane Sonko vous l'avez illégalement radié euh, sur le fichier électoral. dama bëgg ngeen delloowaat ko ci état du Sénégal amuloon lu dul bu fekkente ne notification bi jot na ko. et je crois que cette formalité a été respectée parce que juge bi mu rendre décision jël na notifié na décision bi nga xamante ne tey jii moom mooy représenté. en tant qu'autorité déconcentrée l'administration centrale au niveau de Ziguinchor donc de ce point de vue là la conséquence bi nga xam ne moo waroon suivre mooy lan la direction générale des élections n'avait pas la possibilité il était dans une situation liée il n'avait pas la la la il n'avait une autre possibilité. que de maanaam amul prérogative. amul prérogative. Mhm. bu koy permettre tey jii nii kat mu contourner cette injonction qui lui a été déjà faite. par euh, le juge Sabassi Faye pour faire autre chose donc dafa waroon jël fiche de parrainage bi mu jox Ousmane Sonko léegi bu fekkente ne avocats du Sénégal ils ont constaté que de d'un point de vue juridique le juge Sabassi Faye a tort en rendant cette décision là bon am nañ une voie de euh, une voie de recours la voie de recours c'est quoi ñu dem au niveau de la Cour suprême Cour suprême maintenant en tant que juridiction de droit dina xool ba xam constatez par exemple l'État du Sénégal a tout faux dans cette procédure mu mu mu si bu constatez ne l'État du Sénégal a a raison de de de de constater que Sabassy Faye n'a pas rendu la bonne règle de droit mu kase décision bi et bu boobaa ñu xam ne loolu la yàlla dogal. d'accord tey wax nga lu am solo parce que dañuy avancer waale un peu euh, que cour suprême tey euh, moom aussi même date lay joxe verdict. Mm-hmm. alors li nga xam ne moom mooy dossier wu euh, cour suprême bi. Mm-hmm. Sabassy Faye ñu bëri ñu ñu ngi wax ne d'abord. Euh, tey même bu fekkee cour suprême dafa war a joxe verdict nekkul verdict boo xamante ni daf koy joxe pour wax kii moo am dëgg wala kii amul dëgg mhm. mais plutôt est-ce que décision bu mu bu mu bu mu rendre mhm. dañ koy approuver wala dañ koy désapprouver loolu aussi bëggoon naa nga indi ci leeral parce que ñu bëri dañu jàpp ne euh, cour suprême dañ fa dem juste pour ñu wax ba xam juge bi dafa am dëgg wala dafa dafa dafa am tort xam nga la cour suprême juridiction de droit la juridiction de fond la il ne revient pas sur les faits les éléments factuels du dossier mmh. n'intéressent pas la Cour suprême les faits là mmh. tels qu'ils ont été débattus devant Sabassi Faye loolu Cour suprême intéressé ko xam Cour suprême lan moo ko intéressé est-ce que le jugement qui a rendu par le juge Sabassi Faye est fondé en droit est-ce que jugement bi est fondé en droit parce que boo xoolee l'article premier portant la création de la Cour suprême da lay wax ne la Cour suprême sauf disposition législative mm-hmm. contraire. Mm-hmm. maintenant en la matière comme je l'ai dit la fois passée il n'y a pas une disposition législative contraire donc li ñu mën jàpp mooy Cour suprême la seule question bi nga xam ne tey jii moom lay essayer de répondre le 17 mooy est-ce que le juge Sapasifay en prenant une telle décision il a fondé sa décision sur la règle de droit si maintenant le juge Sapasifay considère que la Cour suprême a fondé sa décision day day day rendre un arrêt de rejet day rejeter les prétentions du demandeur au pourvoi le demandeur au pourvoi en la matière c'est l'État du Sénégal mhm. bu fekkente ne à contrario la Cour suprême a constaté que les arguments de l'État du Sénégal sont des arguments qui sont convaincants le mhm. juge Samba Safay n'a pas appliqué la bonne règle de droit mhm. la Cour suprême aura maintenant la possibilité de casser la décision donc bu casser décision bi nag ça veut dire li nga xam ne tey jii moom la Cour suprême moom la Cour pour mu euh, li ko li gën a mën a pour mu casser une décision de justice mooy bu constater ne la décision n'a pas de base légale. n'a pas de base légale c'est-à-dire juge bi rendre une décision boo xam ne tegu amul fu mu ko. tegu ko ci droit tegu ko ci texte euh, wala par exemple wala par une insuffisance de motif. le juge il n'a pas bien motivé sa décision. wala par exemple il a constaté que cette décision la viole la règle de droit. mais nag man li ma jàpp en tant que juriste même si la justice elle vraiment été séduit parce que je me suis dit que ce juge-là il a la bonne règle de droit. d'accord alors euh, comme ni ma ko waxee ma rappelé leen yéen a suivre li nga xam ne moom mooy seen émission jàngat dañuy indi ay euh, euh, point yu baree bari bu ko defee rek moom mi nga xamante ni moom mooy la personne concernée moom mi ñu fi dalal mu def ci ay jàngat yu ama am solo alors tey Sénégal dañu tollu ci benn période boo xam ne contexte préélectoral lañu war a jëm. Euh, c'est un peu mouvementé euh, tey ñu ngi dégg ba ay mots yuy suscité ci suuf comme report élection yi est-ce que conditions yi réunir na maanaam ay introspection yu ñuy posé wu par rapport ak euh, élection yi ñu jëm tey est-ce que am nañu possibilité wala am nañu droit reporter élection yi peut-être ci ay suppositions. xam nga le principe lan la mooy le respect du calendrier républicain je crois que quand on est dans un pays normal dans un pays qui se dit démocratique Euh, à chaque fois que tey jii nii kat moo am un calendrier électoral danoo war a respecter le calendrier républicain c'est-à-dire que les élections se tiennent à yi nga xamante ne moom lañ ko prévoir. Mhm. loolu mooy principe bi. mais nag boo xoolee par exemple les gens qui suscitent l'idée selon laquelle les élections doivent être repoussées mooy ñi nga xamante ne tey jii nii danoo constaté ne nous sommes à combien de mois des élections. nous sommes pratiquement dem ci élection élection présidentielle c'est-à-dire moi moi je ne je ne suis pas un politicien pour dire qu'on doit reporter ou bien on doit pas reporter mais les conditions pour qu'on puisse aller vers une élection libre transparente et inclusive ne sont pas réunies ça on peut le dire mhm. pourquoi ne sont pas réunies parce qu'au moment où je vous parle ce qui est comique et ironique moi il n'y a qu'une seule candidature sénégalais benn candidat candidature la candidature la candidature de maintenant bu ñu nekkee maintenant dans une dans une situation boo xamante ne nii y' pratiquement une floraison de candidats on parle d'une de de deux cent et quelques candidats alors qu'en réalité dans les faits li nga xam ne moom lañ constaté mooy le seul candidat bi sénégalais mën a juré ne moom candidature am leer na mooy la candidature de Amadou Ba donc bu nekkee ci condition yooyu noonu ñii seen leur candidature est écornée par des arrestations ñii bu ñu bëggee dem uti parrainage ils sont par par par des forces de l'ordre donc de ce point de vue là nguur gi deful benn créé wul les conditions optimales les conditions convenables pour que tey jii ñu mën a dem vers des élections libres transparentes et inclusives et je prends les trois mots pourquoi élection yi mënul nekk ay élection yu libre mënul nekk ay élection yu libre parce que acteurs yi nga xam ne tey par exemple ñoom ñoo war concourir au suffrage des sénégalais gis nga les actes de percussion dont ils sont victimes je prends l' de Khalifa Sall. Mm-hmm. koo xamante ne récemment demoon na ci dialogue national bi. Mm-hmm. mais mënoon na wax aujourd'hui que Ousmane Sonko. am na dëgg ci kaw ay Khalifa Sall ñoom ñi nga xam ne demoon nañ ci dialogue bi parce que dem ci dialogue boobu empêché wul tey ji nguur gi nga xam ne moo fi nekk à chaque fois que ñoom ñu génne di dem ci terrain pour utiliser pour collecter force de de di leen interdire donc c'est une c'est une contradiction que de dialoguer avec avec jàpp ne ñoom ñi demoon foofu loolu échec la. non c'est un échec mais xam nga Khalifa tey quoi qu'on puisse dire ñu bëri ñu ngi doon seen bokk ni Amadou Ba leeree noonu la leeree. attention. seen bokk seen bokk comme ni attention là là en tout cas la réalité du terrain n'est pas la réalité du terrain révélé li nga xam ne ni moom nga wax nii parce que boo xoolee tey jii bu fekkente ne kooku bokkam dafa leer mhm. alors à réalité il n'a même pas la possibilité de se mouvoir allègrement pour collecter des parrainages ça pose problème parce que foo jàdd tey jii force de l'ordre arrêté la donc de ce point de vue là mënuñu dem ci élection yoo xam ne élection yi libre lay doon la la transparence est déjà euh, pose parce que le processus électoral déjà présent montré wul une certaine transparence parce que bu président de la république sañee jël par exemple dogal Sénat avocat Ousmane Sonko dem clamer Sénat ne leen kat ah DG bi nga xamante ne tey jii yéen yéenay autorité administrative indépendante bi nga xam ne yéen yéen a koy contrôler mhm. yéen a am pouvoir de euh, pouvoir de contrôle ci moom pouvoir d' pouvoir de substitution ci moom jël na dogal boo xamante ne tey jii nii kat nee na de respecter une décision de prendre acte des arguments. de de de de des avocats d'Ousmane Sonko en des GIE tey jii mu joxe fiche de parrainage ñu bañ ñu jëlee fa Sénat donc acte le président de la République jël na ko à travers un décret boo xamante ne tous les juristes savent que c'est un décret qui illégal de ce point de vue là ça ça ça ça ça biaise déjà la transparence dans dans le processus électoral longtemps. non il y a des membres de la Sénat yu seen mandat jeexoon mais pas tout le monde. d'accord donc foofu ça reste il faut ñu préciser moom déjà décret bi moom illégal à son encontre parce que moom mandaam génn depuis fort longtemps okay. mais quand vous prenez l'autre euh, un autre membre de la Sénat par exemple Seydou Nourou Ba mhm. moom mandaam jeexagul d'accord c'est de là on parle de de de de de de de, de l'illégalité même de ce décret qui a été pris mm -hmm. autre viola euh, autre illégalité bi nga xam ne tey jii nii décret bi am na ko mooy le fait par exemple de nommer un membre de la du conseil constitutionnel biir sena alors qu'en réalité gisuñu benn yoon foo xamante ne moom démissionné fa conseil constitutionnel le président de la république quelles que soient ses prérogatives il n'a pas la possibilité mu mu mu génne membre conseil constitutionnel membre conseil constitutionnel démission moo ko fa mën a jëlee wala incapacité mais on a constaté il n'y a ni une démission qui a été prouvée ni une incapacité qui a qui a été prouvée ñu jël benn membre conseil constitutionnel yóbbu ko Sénat alors que loolu noonu la justifié wuñ ko loolu aussi day day day wane ne le décret qui a été pris par le président de la République est illégal donc bu fekkente ne nekk naan ci situation yu mel noonu amul trans amul amul transparence les élections ne sont pas ne sont pas il n'y a pas une inclusivité. Pourquoi Parce qu'au moment où je vous parle, nee naa la seule la candidature de Amadou Ba est est approuvée ñi si des ñëpp. seen candidature ci loxo yàlla la nekk mënoon na dem ba conseil constitutionnel comme on l'avait fait en 2019 ñu retenir trois à quatre candidats bu boobaa nag les élections ne peuvent pas être inclusives donc de ce point de vue là ñi xam ne ñu ngi susciter l'idée de reporter même l'élection présidentielle peut-être ci élément factuel yooyu noonu lañ pour xam ne comme que le Sénégal a deux mois des élections nekkul ci ambiance su ñu dem vers des élections libres transparente et inclusive. Donc, est-ce qu'il n'est pas plus opportun, est-ce qu'il n'est pas plus crucial de reporter ces élections-là? Peut-être que ça pourrait donner la possibilité au régime en place de comprendre que élection bu ci waree dem kat

à trois mois kenn amul droit laal lépp loo xam ne commission la bu war a gérer li nga xam ne moom mooy élection yi alors tey est-ce que le fait que tey ñu changer commission Sénat bi maanaam membre yu bees yi teg fi ñeneen ainsi de suite est-ce que loolu violation la c'est une violation et une violation euh, du protocole additionnel de la CEDEAO parce que protocole additionnel de la CEDEAO bu day interdire à six mois des élections ñu def ay réformes sur le processus non c'est-à-dire la question du du du mandat moo xam nga man moom laa la expliqué tout à l'heure xam nga euh, les membres de la Sénat du ñëpp la seen mandat jeex. d'accord. parce que limal naa la tout à l'heure que le président Doudou Ndir décret décret bi illégalul à son encontre parce que moom mandaam jénn depuis fort longtemps et même l'opposition a toujours décrié le fait que le président de la république mainteniroon ko foofu noonu mais y un autre magistrat boo xam ne mandaam jeexagul je je y a prends l'exemple du de de de de Seydou Ba boo xam ne mu ngi mu ngi woon Sénat mandaam jeexagul mais xam nga par exemple la suspicion lan moo tax mu légitime mooy pourquoi attendre ba président décision boo xamante ne tey dafa enjoindre la direction générale des pour mu jox Ousmane Sonko parrainage nga bëgg nga fa jëlee loolu moo créé une suspicion dans la conscience collective. d'accord donc président de la République il aurait pu peut-être limoger le président de Denis depuis fort longtemps mais mm-hmm. pourquoi attendre à ce qu'il prenne une décision défavorable à l'État pour prendre ce décret-là. Euh, bi nga xam ne tey jii nii kat moom moo ko moom moo ko moom moo ko génne ci nga xam ne moom mooy membre Sénat c'est c'est de là où ça pose problème. alors est parce que j'ai entendu dire la fois passée même l'expert électoral Ndiaga Sylla bi nga xam ne ne il compte attaquer ce décret là mhm. parce que le décret du président de la République c'est un acte administratif non pas à caractère réglementaire mais c'est un acte administratif à caractère individuel mën nañ ko attaquer pour recours excès de pouvoir donc on peut attaquer ce décret là devant par devant la chambre de la Cour suprême en recours pour excès de pouvoir. Si, par exemple, le, demande, le, le, le requérant parvient à démontrer que ce décret-là est illégal puisqu'il viole les dispositions légales. Mais tu sais que ce qui est le plus important, mon président de la République. Mhm. Mon tel n'a pas du candidat. Donc, si nous voyons qu'il y a une mutation ou un acte, est-ce que réellement, ci avons ci décision bi est En tout cas, bon, les politiciens ont la possibilité de, de penser légitimement qu'il y a une contradiction dans la démarche du président de la République. La contradiction dans la man en tant que juriste du ma ko wax parce que ces questions politiques ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. Mais les politiciens ils peuvent donc euh, avoir une suspicion légitime en, montrant que le, la démarche du président de la République est contradictoire. Pourquoi? Parce que tey jii nii le président de la République quoi qu'on puisse dire avait pris un acte à dire que les Sénégalais on longtemps décrié le fait que le président de la République da doon mener des actes yoo xamante ne nii yaakaaroon na ne dafa bëgg a euh, imposer une troisième candidature mhm. alors que le président de la République récemment il a pris la décision de ne pas participer à ces élections présidentielles mais la question elle est importante pourquoi parce que tey li ñu doon xaar ci président de la République mooy mu ne man kat pour ba pour pour pour euh, bañ a ndërmeel Sénégal pour bañ a créer une situation de tension permanente damay damay damay damay damay damay non seulement renoncer à ma candidature mais je vais mettre les conditions pour permettre aux uns et aux autres d'aller vers ces élections-là de manière libre, transparente et inclusive. Mhm. Mais on a constaté dans la situation factuelle que le président de la République, depuis qu'il a pris la décision de ne pas candidater aux élections présidentielles à venir, de mener un acte yo xamantene da ngay poser même la question au plus profond de toi, est-ce que réellement il est dans, une logique de lâcher le pouvoir? Donc acte avoir une troisième candidature mais day mën a ay actes yoo xamante ne daal dafa mel ni ko doyalul ci nguur gi. donc loolu nag créer na des suspicions dans la conscience collective et vraiment. Euh, je crois que waru woon a demee noonu parce que tey jii il avait une très belle opportunité d'entrer dans l'histoire à travers acte bi nga xam ne jëloon na ko mhm. un acte qui a été salué par tout le monde mhm. le pouvoir comme de l'opposition donc yaakaar naa ne war na aussi sàmm lool noonu de telle sorte que il va sortir par la par la grande porte alors euh, tey ñu bëri jàpp nañ ne ki nga xamante ni moom mooy le ministre de l'intérieur di Sidiki Kaba ñu bëri ci bi ñu ngi wax ne moom warul sax organiser élection yi étant donné que dafa am appartenance euh, politique tey bu fekkente ni aussi si fois que moom euh, war na mën a euh, organiser élection yi dans la transparence et que tey mu jaarale ko si yoon pourquoi pas ñu may ko opportunité boobu waaw xam nga élection je crois que le président de la république il aurait pu apprendre de de de de son mentor Abdoulaye Wade xam nga à l'époque bi nga xamante ne tey ji l'opposition sénégalaise de l'époque avait dénoncé vigoureusement donc euh, que ministre de l'intérieur de l'époque Ousmane Ngom bu mu organiser élection yi pour des raisons mm, politique entre autres mhm. président Abdoulaye Wade dafa ne dafa dafa dafa dafa en tant que démocrate convaincu dafa dafa jëloon le soin mu créer un ministre chargé des élections jox ko benn personne boo xamante benn personnalité boo xamante ne ni même l'opposition de l'époque dafa d'accordoon sur sur son intégrité entre autres mm -hmm. mais euh, on a constaté que le ministre de, de l'intérieur actuellement bon mën na noo wax ne c'est un gars boo xamante ne ni il fait de la politique c'est un gars boo xamante ne ni il n'est pas prêt pour organiser les élections de façon libre transparente et, et inclusive pourquoi parce que déjà moom bi mu ñëwee yàggul mais direction générale des élections c'est une c'est une direction boo xamante ne ni affiliée au sein du ministère de l'intérieur mm-hmm. donc bu fekkente ne la la direction générale des élections constaté nañ ne un juge jël na décision moom mu bañ na di exécuter décision boobu te moom supérieur am nekk le ministre de l'intérieur donc les gens peuvent aussi penser que à partir du moment moom bi mu ñëwee li nga xam ne ni moom la fi njëkk fekk mooy une décision de justice boo xam ne dafa exécutoire une décision prise régulièrement par un juge yow direction boo xam ne dafa nekk ci sa ministère bañ na du ko du ko appliqué Sénat wax mu ne du ko appliqué on peut dire que yaa nekk ci ginnaaw parce que tey jii nii bu fekk moom bu ko neexoon moom moom le ministre de l'intérieur s'il la la l'injonction aux directions euh, au directeur général des élections pour me respecter scrupuleusement pour me respecter scrupuleusement cette décision là da koy def c'est du tic au tac mais on a constaté que depuis depuis loolu donc moom nangu la respecter décision boobu noonu te moom mi ngi nekk direction ci biir ministère de l'intérieur mhm. donc loolu nag créé na aussi beneen suspicion encore plus légitime bi pousser l'opposition à penser que ce ministre de l'intérieur n'est pas nga xam ne moom mooy Abdoulaye euh, Bibi balde gëf euh, def na benn euh, bataaxal wala constat sax laay wax par rapport à la candidature de Amadou Ba nee na c'est un candidat boo xam ne moom jàpp na ni il ne le rassure pas et il rassure même pas ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk ci ginnaawam ça fait presque depuis bi ñu defee nomination ba tey au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu bëri dañuy critiquer mm-hmm. choix bi te boo xoolee ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi wax na ko nee na moom moo fi tane donc tey suñu demee aussi ba benn Bokk Yaakaar à deux mois des élections ñuy dute ci seen candidat est-ce que kooku jàpp nga ni tey war na mun a sori ci élections yi. waaw xam nga la candidature de Amadou Ba c'est une euh, xam nga lu tax lu tax mu nekk candidature boo xamante ne candidature bu complexe la mooy déjà yow même ñi nga xam ne tey ji ñoom nga bokkal moom ñoom nga bokkal camp la la plupart d'entre eux. c'est-à-dire euh, euh, cautionner wu néew sa candidature loolu déjà ça pose problème l'autre élément qui qui qui qui qui montre que la candidature de Amadou Ba pose problème mooy bi mu waxee que man je suis le candidat de la continuité mais mais c'est-à-dire quand Amadou Ba dit que je suis le, le candidat de la continuité mais ça pose problème c'est une très mauvaise communication puisque Sénégal moom il est le Sénégal est en de traverser les moments les yow nga ñëw nekk ci nguur goo xamante ne ñëpp ñu ngi koy décrier fi nga xamante ne tey jii Sénégal fa leen ko indi actuellement nii la la cherté de la vie les jeunes yi nga xam ne tey jii par exemple kat ils n'ont plus euh, euh, un brin ne serait-ce qu'un brin d'espoir ils n'ont plus une perspective d'avenir li nga xam ne conduire na leen à à affronter la mer avec ses profondeurs insondables mm-hmm. donc pour rechercher un ailleurs meilleur pour reprendre une expression courante yow nga bëgg a wax ne par exemple situation boobu baax na man je suis là pour continuer cette situation là donc je crois que Amadou Ba il s'est trompé en disant que moi je suis le candidat de la continuité parce que booy continuer da ngay continuer lenn loo xam ne baax na booy continuer da ngay continuer gouvernance boo xamante ne tey jii par exemple kat nit ñi nga xam ne tey ñu ngi dëkk foofu noonu ñu situation économique et sociale extrêmement précaire bi nga xam ne tey jii ni que moo conduire ces jeunes là yi nga xamante ne tey jii mhm. amuñu perspective constaté na ne Sénégal amul perspective d'avenir parce que da ngay jàng ba am ay diplôme doo liggéey wala peut-être liggéey mais li lay li nga xam ne tey jii moom laa lay fay mënu la permettre nga subvenir à tes besoins et à ceux de de de de ta de ta famille donc de ce point de vue là bu nekkee dans une conjoncture économique et sociale extrêmement exécrable yow mi nga xam ne tey jii yow yaay le premier ministre nga bëgg wax ne man je suis le candidat de la continuité je crois que c'est une très mauvaise communication parce que les gens ils vont penser tout naturellement ñu bëri dañuy jàpp ne peut-être euh, ak expérience bu mu acquérir parce que quoi qu'on puisse dire Amadou Ba c'est un homme d'État peut-être jaar na ci posture yoo xamante ni bu dee tuuti expérience am na ko waroon na mën a nekk à la hauteur de cette candidature oui mais xam nga Amadou Ba il est c'est-à-dire le problème c'est ça au-delà de la personne de Amadou Ba bi nga xam ne tey jii c'est un fonctionnaire aguerri pour avoir euh, euh, été un fonctionnaire de la République impôt et domaine entre autres mais le problème ça de ça transcende même la simple personne de Amadou Ba mais xam nga problème fondamental bi lan la c'est-à-dire li nga xam ne tey jii par exemple moom la porte en bandoulière mais Amadou Ba quoi qu'on puisse dire il porte en bandoulière donc euh, la gestion de ce pays. Mhm. donc gestion boobu nii. que certains sénégalais caractérisent d'une gestion boo xamante ne par exemple sénégalais yi gis ñu ci seen bopp donc Amadou Ba day nekk day day nekk tey par exemple si je peux le dire ainsi day endosser responsabilité wu gestion bi nga xam ne tey jii par exemple moom moo ñu conduire à cette conjoncture économique et sociale tellement exécrable de ce point de vue là boo ñëwaatee nga wax sénégalais que moi je suis le candidat de la continuité mais les sénégalais ils la question de quelle continuité parle-t-on lan. mooy tey jii ni que nit ñi amuñu liggéey ñu ngi dem ci géej gi continuité mooy lan les gens ont entré de de de de décrier la la cherté de la vie les gens les les les gens ne ne peuvent même pas ex exprimer ce qu'ils ressentent au plus profonde parce que il y une il y a euh, des des des menaces qui pèsent sur les citoyens donc je pense que insécurité juridique bi nga xam ne tey jii sénégalais bi nekk nañ ci les arrestations intempestives les mandats de dépôt le fait que les jeunes amatuñ un brin d'espoir pouvant leur retenir ak continuer de rester au Sénégal mais loolu noonu la bu nga xam ne tey jii nii dafa dafa regroupé wu yow nga ñëw nga ne man je suis le candidat pour continuer tout cela mais déjà ça pose problème. d'accord euh, je crois que loolu leer na euh, en tout cas nekk na mbir moo xamante ni euh, au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi koy nekk di ko lam-laamee. alors gis nañu front bu bees bi nga xamante ni opposition bi taxawal nañ ko. muy euh, front pour la transparence et des élections inclusives donc mu nekk loo xamante ni euh, tey ñu bëri jàpp nañ ni dañ ko def euh, tardivement parce que quoi qu'on puisse dire tey opposition bi waroon nañu am possibilité réunir seeni force bu mbir bi du egsi fii maintenant on a vu l'opposition dans l'opposition tey mën nañ ni looloo tax sax Sénégal ñoom ku ci nekk li nga xam ni moom ngay daj nga koy daj actuellement tey bu ñu boole woon seen force wala ñu dajale ko amaane na fi nga xam ne euh, fi ñu toll nii duñ fi yegg si ak ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi alors tey en tant que koo xamante ni comme ni nga ko waxee depuis euh, sànq ba tey yaa ngi def jàngat euh, est-ce que jàpp nga ni front bi solution la pour éradiquer li nga xam ne moom moo fi des étant donné que élection yi deux mois moo ci des. ah tout xam nga mooy li nga mooy li nga wax à un moment donné l'opposition avait laissé prise à un moment donné on peut dire que l'opposition avait laissé parce que gisatuñu woon benn acte digne boo xamante ne nii. opposition sénégalaise doon na ko mener dans le sens de pousser même le régime à prendre acte de de leurs donc bu ñu demee tey jii nii ba nga xamante ne tey jii nous sommes à quelques encablures des élections et que certains membres de l'opposition se regroupent pour créer ce front-là disant que nous voulons que les élections soient inclusives je crois que ça pose déjà problème parce que mm-hmm. am na ay préalable yoo xamante ne tey jii nii kat da ko war a pourquoi pourquoi par exemple moi je suis contre ce front là je suis pas contre le front ci ci ci ci ci ci ci objet ci initiative bi mhm. parce que ñëpp bëgg nañ que ces élections soient inclusives mais je suis contre ce front là parce que am na ay préalable préalable mooy lan mais tey jii nii oh, l'opposition sénégalaise ki koy incarné dans sa dans sa dans sa qui incarne l'opposition sénégalaise dans dans son expression au vrai très bien dans son expression la plus la plus la plus dure. Mm -hmm. mais c' est Ousmane moom mooy le principal opposant de ce régime mais tey jii kooku noonu ñu xool tey jii actes yi nga xam ne ni tey jii doon na ko mëne au moins moom lorsqu'il était dehors tey mu nekk en détention alors qu'on s'est rendu compte que am na benn réa am na lenn loo xam ne c'est une réalité incontournable mooy tey jii nii sénégalais yëpp la plupart en tout cas des sénégalais pour ne pas exagérer dans l'analyse moom lañ jox bopp c'est-à-dire moom lañ gis ne situation bi nga xam ne tey jii nii moom la nekk kat il est le seul à pouvoir renverser la tendance c'est-à-dire au moins mettre les conditions pour un Sénégal meilleur kooku noonu déjà il est en détention léegi ñi nga xam ne tey jii par exemple ñu ngi ñu ngi ñoo ñoo ñoo ñoo regroupé autour de ce front là est-ce que c'est des gens yoo xamante ne nii euh, am nañ benn dayo am nañ benn. benn benn benn ossature pour pouvoir pousser le régime à prendre en considération leurs revendications je ne le pense pas loo xamante ne tey jii Ousmane Sonko mënu ko réussir dans l'opposition sénégalaise je ne pense pas que notre opposant aura la possibilité de le réussir parce que Ousmane Sonko quoi qu'on puisse dire il avait les coups de franche même bu fekkente ne tey jii on a constaté qu'il est dans une situation de faiblesse Euh, dafa puissant avec les moyens on a regroupé tous les moyens de l'État pour les mettre en détention mais tey jii ni lépp loo xam ne tey jii moom en tant que opposant bi nga xamante ne tey jii il cristallisait l'espoir pratiquement de tout un peuple nekk na en détention je ne pense pas que les autres mais mais xam nga xam nga tey li ñoo fay la force lu bëri wax nañ ko tey bu fekkente ni ñoom dem nañu rendre dem nañu ba rendre compte que ni euh, lâcher prise bi ñu def c'est une erreur ñu nañ ko mun a rattraper tey boo xoolee détermination bi nga xam ne moom la ñu àndal peut-être mën na impacter étant donné que tey nee nañu euh, même le 17 bi dañu fas yéene def li nga xam ne moom mooy non seulement marche pacifique mais dans le dans les 46 départements du pays euh, euh, tey gis nañu sax ki nga xam ne moom mooy le ministre Euh, porte parole Abdou Karim Fofana mi ngi alerté di wax ne buñ ku fi def lor euh, établir euh, trouble à l'ordre public ainsi de suite donc ku ci nekk yaa ngi lancé sa morom pikk mu mel ni kon le fait ñu jug rek créer li nga xam ne moom mooy front bi am na effet bu mu commencé def ba sax ñoom ñuy génn di répliquer. oui xam nga am na am na effet bu mu commencé def peut-être la république la république de de de. Abdou Karim Fofana c'est c'est tout naturel parce que ñoom à chaque fois que ñu constaté ne par exemple opposition bi mi ngi mettre en branle des initiatives allant dans le sens de de de de de revendiquer un certain nombre de de d'injustice ñoom dañuy def dañuy def ay sorties pour pour pour pour non pas pour alerter mais dañuy def ay sorties pour menacer parce que mm. on a constaté que ñoom moom comme que ils ont la police ils ont la gendarmerie ils ont l'armée donc toujours ñoom dañ loolu dañ dañ ciy user ils en usent et en abusent parfois même mais te jii nii boo xoolee par exemple bon le fonds est déjà mis en place on verra maintenant par rapport aux initiatives à venir est-ce que par exemple ils auront la possibilité ñu jël ay actes yoo xamante ne nii dina mën a pousser le président Macky Sall mu prendre acte de leurs revendications et que peut-être ñi war a bokk ci élection yi boo bokk. mais en tout cas man li ma gëm. man li ma gëm. je peux le dire à brûle pour point le président Macky il n'est pas prêt pour pour et je pense que il n'est pas prêt pour reculer mais acte yi muy mené da lay wan ñu bari l'inclusivité de l'élection va poser problème parce que beaucoup de candidats yi ne tey jii nii ñu ngi ci terrain bi seen candidature kenn mais ça pose problème dans une ñu bëri dañuy nekk di profito si si ñoom entre seen biir parce que quoi qu'on puisse tey gis nañ ni front bi waa PDS gisuñu leen ci. Mhm. Euh, waa taxawu Sénégal gisuñu leen si même candidat yi nga xam ne ñu ngi nekkoon bennoo te ñu limogé leen wala boog ñu démissionné ñëwuñu rejoindre front bi te tey xeex benn régime bokk na ci union bi ñeen ñëpp ngeen xàccandoo doorandoo tey gisoon nañ fi F24. jugoon juddu na fi jugoon fi pour xeex bi Macky Sall renoncé troisième man candidature kenn déggatu ko mhm. ñu bëri jàpp nañ ne sax dañ doon profité ci puissance Ousmane Sonko wala tuuram moo taxoon ñu bëri di ko accompagner maintenant est-ce que bii nekkul seen dernière chance pour ñu saisir ko pour que tey ku ci nekk mën a sentir sa bopp l'essentiel mooy ku ci nekk ci ñoom mën a fàtte tuuti sa bopp pour l'intérêt commun du pays waaw xam nga déjà le PDS moi je, le, je ne le considère pas comme un parti de pourquoi. xam nga la moo tax le PDS mënu ma ko mënu ma ko considérer comme un parti de l'opposition est-ce que ces derniers temps là gis nga ne serait-ce qu'un seul acte qui a été pris par le PDS allant dans le sens d'affirmer son ancrage dans l'opposition amul benn acte boo xam ne gis nga présentement PDS di ko jël pour affirmer son ancrage dans l'opposition amul duñ bokk ci ay manifestations doo leen gis ci plateau yi ñuy dénoncer le le la gestion du pays non donc les suspicions yi nga xam ne yenn sénégalais yi am nañ ko di wax ne par exemple PDS dafa dafa dafa dafa nekk parti politique boo xamante ne réeroowul ak le président Macky Sall donc mën nañ ko mën nañ mën nañ ko mën nañ ko corroborer puisque tey ji gisoo benn acte boo xamante ne nii opposition mu ngi koy dans le sens de li nga xam ne moom moo am nga ciy gis PDS mu nekk mu mu nekk au premier plan donc PDS moi je le considère pas comme un parti de l'opposition plus que ki nga xam ne tey jii moom mooy incarner le parti mu nekk Karim Wade mais mënuma concevoir ñi nekk fi humer les les les grenades lacrymogènes nekk fii nii par exemple di di di di mener ay actes de revendiquer. yow nga toog mais mais moom bu fàtte ni Karim dafa nekk en exil. oui mais c'est-à-dire c'est c'est c'est ça. du du bëgg-bëgg mais état bi da ko obligé pour mu dem. waaye léegi nag loolu moo lay waral ne du bëgg a bëggam état moo ko obligé mais Karim Wade il n'est pas indispensable pourquoi ñoom ils n'ont pas pu choisir quelqu'un boo xamante ne dans les rangs de ce parti là il aura les de franche mais pour fondamentalement être le candidat du PDS ñun sénégalais mënuñoo xaar koo xam ne présentement yow état moo lay exilé nga toog fële ne le tu tu tu es complètement déconnecté des réalités de ce pays là ba pare a envisager le Sénégal avec nga xam ne Sénégal moo ngi koy traversé nga ne ko doxaa tu te bëgg ñëw bëgg ñëw du jour au lendemain ne man dama soxla par exemple ngeen jox ma Sénégal alors que y a des gens yoo xam ne nekkoon nañ fi di rayante ak di rayante ak nguur gi excusez-moi le terme gisoon mi ngi doon ànd ak mi ngi doon gunge Ousmane Sonko à un moment donné mais tey li jaaxal Sénégalais yi mooy gis nañu ne front bi ñoom seen bopp sax ils se parce que nee nañu ñëpp la ñu yónnee ñe la waa taxaw wa waaw non taxaw moom je je vous dis une chose là xam nga ban erreur de participer au dialogue leen leen Sénégalais le coefficient personnel de Khalifa Sall sénégalais yëpp fi ñu weddee Khalifa Sall mooy bi mu participé ci dialogue bi et le dialogue n'a pas n'a pas n'a pas créé les les les les effets positifs au sein de ce parti là parce que nit ñi constaté na ne bi mu jugee ci dialogue boobu noonu non seulement dialogue boobu noonu amul benn importance parce que dañ doon dialoguer pour seen candidature ñu accepté ko parce que moom il avait il avait commis l'erreur de dire que man naa bokk rek c'est-à-dire man li may intéressé mooy ma candidature donc bu ma Macky Sall wooyu damay dem mais opposition de l'époque dañ nekk woon ñun mënuñu je te donne l'exemple de Ousmane Sonko Ousmane Sonko il a toujours été cohérent dans sa démarche nee na woon nee na leen woon man dialoguew ma parce que du ma dialoguer alors qu'en réalité am na man ci samay ñun ñoo xam ne ñu ngi ci biir prison yi du ma dialoguer parce que man déjà il y il y euh, une kyrielle de dossiers yoo xam ne état du Sénégal ndodd na ko sama kaw donc du ma dem di dialoguer mais aujourd'hui li nga xam ne tey jii moom moo am mooy l'histoire a donné raison a Ousmane Sonko parce que ñoom Khalifa Sall yi nga xam ne tey jii demoon nañu dialoguer on a constaté qu'ils n'ont même pas la possibilité de se mouvoir allègrement je seen cortège dañ ay ay gendarme dañ koy arrêté donc de ce point de vue là yaa ngi dialogue ak kii nii dialogue objectif moo war a nekk décrisper la situation décrisper la tension politique bi nga xam ne constaté woon nan ko mais bu fekkente ne yow da nga dem ci dialogue boobu ba pare et on a constaté que yow tu es victime des injustices de ce régime la donc Ousmane Sonko day am dëgg sa kaw. que régime bii nii du euh, dialogue bi nga xam ne tey jii woote woon na ko c'était juste pour nax pour nax yenn yenn opposants et je crois que taxaw Sénégal est tombé dans de plus ñoom tey comme seen front boobu war nañ def le tout ba ba ba ba ba réunir. benn fo démons démontrer benn force boo xamante ni tey peut-être dinañ mën a survivre par rapport ak li nga xamante ni moom mooy élection yi ñu jëm. ñu bëri ñu ngi seen biir ñu ngi lamlaamee problème parrainage mais tey ku ci nekk ci ñoom amaane na bu fekkonte ni xeex bi defoon nañ ko benn xeex xëy na mbir mi du yegg si fii donc c'est un peu compliqué par rapport ak ak front boobu euh, donc dañuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy euh, dernier point bi muy wàllum immigration clandestine ñu bëri jàpp ne euh, état bi dafa yéex a agir mën nañu wax sax ne. est a agi. Euh, peut-être la fait que mu mu mu joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore marine bi peut-être defuñu contrôle bi ñu waroon def peut-être empêcher gaal yi war a mën a départ alors peut-être la euh, euh, nu mu tuddati le fond du problème se trouve que tey lan moo poussé sénégalais ñuy dem. c'est-à-dire véritable raison wala véritable question bi ñu war a bi ñu war a euh, njëkk teg ci taabal ji mooy lan moo xew qu'est-ce qui s'est passé si année bi peut-être émigration daan na fi am mais fois-ci li am c'est extraordinaire. xam nga lan dama koy analyser sous deux angles xam nga boo xoolee par exemple sénégalais yiy dem ñaari ñaari type bu ñooy dem ñaari type mooy les sénégalais yi nga xam ne par exemple ils n'ont plus un brin d'espoir. ñoom xam na ne du métier buñ jàng bu mokk du jàng ba am ay diplôme donc buñ continuer toog Sénégal euh, si gim ñi ñi jàng ba am ay diplôme sax parfois ils sont délaissés donc ñoom ils n'ont ils ne voient pas une perspective d'avenir pouvant leur retenir au Sénégal ñooñu ñoo dem mm-hmm. ñooñu peut-être seen dem je sais pas mën nga ko légitimer ou bien mën nga ko bañ a parce que ku ci nekk daal li lay dem la yow yaa ko xam mm-hmm. beneen catégorie bii dem xam nga mooy ñan mooy ñi nga xamante ne tey jii nii amuñu amuñu c'est-à-dire ils ne sont pas dans une situation difficile au Sénégal parce que quand quelqu'un te dit par exemple que man j'ai dépensé plus de huit millions pour jaar Nicaragua wala pour jaar par par d'autres voies pour génn réew mi mais kooku déjà il n'est pas dans une situation précaire mais pourquoi mm-hmm. muy dem parce que am na ñu bari ñoo xam ne xam nga lan moo leen poussé à ce ñu génn du par exemple vie bu miti parce que ñu ngi sant yàlla mais danoo dem danoo xool Sénégal ni muy ni muy ni muy ni muy fonctionner les arrestations intempestives amatoo liberté du jour au lendemain mën na la jàpp dóor ci kaso bi mu créé tey jii benn insécurité juridique sans précédent am na ñoo xam ne loolu moo leen conduire ñu ne ah comme que Sénégal kat nekk na dëkk boo xam ne nii tension sur tension la Euh, boo waxee ñu jàpp tëj mo am kenn amatul possibilité wala kenn amatul droit wax li nga xam ne moom ngay sentir au plus profond de toi donc damay dem au moins foo xamante ne dinaa tranquilliser sama esprit mhm. dinaa dinaa am opportunité ji mu vivre normalement parce que Sénégal quoi qu'on puisse dire nous vivons dans une angoisse existentielle mhm. angoisse existentielle boobu li nga xam ne moom moo ko créé mooy la cherté de la vie qui est une réalité au Sénégal avec l'électricité entre autres mhm. mais le fait que les jeunes n'ont plus une perspective d'avenir perspective d'avenir na boo demee tey jii boo jeune boo interroger la plupart des jeunes yi ngi interroger dan lay wax ne la amuma liggéey wala peut-être liggéey bi ma am permettre ma tey jii nii kat ma sub ma subvenir non seulement à mes besoins vitaux mais ça me permet pas aussi de subvenir euh, euh, concomitamment de ma famille. Mhm. donc bu nekkee maintenant dans dans dans cette situation là am na jeunes yoo xam ne li nga xam ne moom lañ yaakaar par rapport aussi ak li nga xam ne moom lañ leen di wan que Europe boo fi ñëwee tu as un très bon salaire entre autres. Mhm. même bu fekkente ne moi sur cet aspect là il faut relativiser. Mhm. que aussi. Europe du Eldorado tout à fait l'Europe n'est plus ko l'Europe n'est plus un Eldorado mm. boo fa demee da ngay liggéey même bu fekkente ne par exemple le bien-être mm. di nga nekk dans des conditions optimales mais attention am na ñu bari ñoo xam ne yàgg nañoo nekk Europe mais réaliser wul ren loo xam ne tey jii nii lu concret la mm. donc de ce point de vue là toog Sénégal mën na tax nga nga nga réussir comme aussi dem Europe mën na tax nga réussir mhm. mais li ta li poussé jeunes yi à ce ji ñu préféré génn mooy li ma la wax mhm. cest dire danoo gisatul Sénégal une perspective d'avenir Sénégal ñi ka ngànk mooy ay ay mag yoo xam ne depuis 1960 ñoom ñooy buur ñooy bëmi ñoom la ñuy gis ñoom ñooy am ay privilèges nga gis ay jeunes yoo xam ne ils sont assermentés ils sont diplômés mais il ne reçoit pas leur part du gâteau bu nekkee maintenant dans une situation où tey jii nii da ngay gis ay mag yoo xam ne dañoo war a dem retraite ñu leen di retenir si certains postes alors que yow en réalité nekk nga jeune tu as de la compétence tu as les diplômes mais tu es laissé en rade donc loolu day créer benn insécurité boo xamante ne nii créer benn angoisse boo xamante ne jeunes yu bëri mën na leen a pousser à ce que ñu génn réew. c'est important maintenant la solution balaa la solution je crois mooy def le tout ba euh, les postes de responsabilité yi nga xam ne ñu ngi koy distribuer ci ci réew mi. ñu koy def de manière transparente mu am contrôle notamment le recrutement ça pose problème mm-hmm. parce que Sénégal ni ñuy recruter u recrute en fonction des obédiences euh, politiques des obédiences religieuses des obédiences famili famili familiales bu ma lay recruter dama lay recruter parce que ñoo bokk euh, parti politique mm-hmm. parce que benn sëriñ moo ma la suggéré parce que peut-être sama membre de famille nga donc même si vous êtes incompétent dama lay recruter donc ñu ñu xoolal la transparence dans le recrutement que li nga xam ne moom mooy le secteur euh, primaire mais ñu ñu ñu investir fa. donc da nga jàpp ni secteur primaire bi dafa précaire de telle sorte mais boo xoolee la plupart des gens yi nga xam ne tey jii ñoo dem ci géej gi ñan la ce sont pratiquement les pêcheurs. les pêcheurs mhm. pourquoi quel est le prétexte avancé par ces pêcheurs là parce que dañ lay wax ñu ne la par exemple à travers les accords de pêche mhm. géej gi koy jaay tey par exemple da ngay dem jël sa gaal ut sa essence dem mais tu rentres produit mais mun si pourquoi tu rentres produit parce que tey jii nii am na ay ay ay ay bateau yoo xamante ne tey jii danoo signé ay accord de pêche ak Sénégal dañuy ñëw donc puiser li nga xam ne tey jii toutes les ressources yi nga xam ne moom moo nekk ci géej gi donc de ce point de point de vue là les pêcheurs yi nga xam la pêche danoo war a danoo war a revoiraat renégocier mhm. bien évidemment les les les accords de pêche et les contrats mhm. mais aussi euh, faire de telle sorte que l' nekk benn activité boo xam ne aussi état bi dafay investir ñu bari man cee gis seen bopp l' élevage entre autres mais je crois que bu fekkente ne il y a une faillite par rapport à ce secteur là mhm. day am un impact même sur euh, la jeunesse et sur euh, la conjoncture du nga baal ma ko xam naa ni point yi jeex na épuisé nañ ko mais juste dama bëggoon aussi nga andi sa xalaat ci nomination bi nga xamante ni def nañ ko njiitu réew Sénégal euh, gis nañu bu yàggul dara Macron daal di koy nominer def ko envoyé spécial donc loolu tey est-ce que am na benn fin bu am njëriñ par rapport ak moom. bon am na benn fin bu am njëriñ ci moom peut-être par exemple, dans le président de la République, quoi qu'on puisse dire, c'est quelqu'un qui maîtrise les relations internationales. Le mm -hmm. président Macky moom loo ko bañ bañ bañ dinga nangul ça maîtrise des relations internationales mais est-ce que ces relations internationales yi gi mu ko maîtriser loolu am na benn impact bu positif si. ci ci ci le vécu quotidien des Sénégalais parce que man li intéressé c'est pas la nomination du président de la d'un point de vue diplomatique d'un point de vue euh, relation internationale am na impact ci moom par rapport à son CV par rapport à son parcours mais loolu lan lay apporter le Sénégal c'est ça la question fondamentale mm -hmm. alors que je pense que euh, les Français moom bu fekkente ne ñun Sénégal ci ñoom la ñuy xaar pour développer wu je peux dire à bleu pour point que nous sommes en train de dormir sur nos lauriers parce que mm-hmm. ñoom li leen intéresse toujours mooy ñëw def ay affaire yoo xamante ne tey jii wan ñu benn affaire boo xamante ne tey jii dañuy séduire alors qu'en réalité ñoom ñoo ëpp li nga xam ne moom lañ ciy moom lañ ciy gagné. moom lañ ciy gagné tout merci beaucoup alors euh, euh, Pam Ahmed Mbaye man nag Pape rek laay wax. te Papa Ahmed la <laughs> donc amoon naa mbégte vraiment dalal la ci plateau bi euh, waxtaan bi am na solo donc dama lay bàyyi nga tàggatoo ak internet yi. merci Lalla donc c'est tout le plaisir. et pour moi, donc de au niveau de la Sénégal 24, mm -hmm. donc mhm. éclairer la lanterne des Sénégalais par rapport à un certain nombre mm de mhm. questions concernant l'actualité politico-judiciaire. Mhm, mhm. donc man maa lay remercier bien évidemment ci invitation bi di la remercier aussi parce que information yu bari à travers tes à travers ces statuts WhatsApp. si laa koy si laa jëlee toujours donc da nga da nga da nekk un homme de terrain. en en tout cas mhm. wala boog femme de terrain. pour ne pas. <laughs> donc grand H. tout à fait donc damay gis toujours donc euh, actualité yi donc. Euh, à la minute, toujours mm -hmm. par rapport à tout ce qui se passe et c'est ce que nous voulons d'un d'un d'un journaliste donc mhm. muy muy éclairer la lanterne des Sénégalais mhm. donc joxe l'information la primauté même de l'information mhm. donc loolu c'est un témoignage boo xam ne bëggoon naa la ko defal di la remercier aussi par rapport à cette invitation merci beaucoup donc amoon nañu mbégte ak contentement dalal ko émission jàngat la woon comme ni ñu koy defee tous les lundis à partir de 14 heures may jaajëfal euh, Zahra mi nga xam ne tey moo jàppoor sur la partie technique ak euh, Dóor waar tey moom Zahra laay ñu ko wax ko wax Dóor waar Dóor waar jaajëfal bu baax a baax di leen jox rendez-vous à très bientôt jërë ngeen jëf